préparé contre saison léegi xoolal janax yaa ngi nii duggaat ci sama tool yi ñu ngi koy yàq góor si waat ci baa ngoon ñu ngi koy ba teg ñun nag léegi amatuñu solution daanaka bàyyi bay bi dem ci euh, dem ci yeneen yi nga xam ne baykat boo nekkee ci kaw da ngay jàpp ni tool yi amuñu benn problème mais boo duggee si biir tool yi da na sax mën nga sa bàyyi jox ko nag yi ñu lekk te diggante daaw ak ren ñoo ngay bay nag di ko nekk guddeeg bëccëg jëlal fii xoolal fii xoolal fii yéen ñëpp teg ngeen ba xam nga vraiment jaaduwul man dama xamul nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk état bi muy sayet ak yooyu est-ce que xanaa yii xamuñu ko ndax yii yëgoon nañ ko ci daaw ak daaw ji daaw bi ndax leppoon na ci tool gunaar yàqoon na ci tool te sayet ba nga ci woon balaa ñu doon delluwaat ci tool dañu waroon am solution ci janax yeeg gunaar yi waaye bay leen noor bay leen nawet doo traité picc doo traité janax doo traité gunaar nun ngaa daanaka léegi doo mu jëriñ benn alalu jàmbur ndax alal bu ñu fi indi rek mu yàquwaat ci lu moo jur mooy tappale rek la ñoo liggéey da ngaa dégg ñaan waalo waalo gi ah, na waar de moom yëpp ca la fi yàq Ndeye muy xalaatu askan wi boo dégloo rek euh, daanaka résumé na jafe-jafe askan wi nday xadi mm-hmm. surtout nag suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci kaw gi mm-hmm. suñu mbokk yooyu vraiment euh, sagam ñu nekk fii ci capital bi sax ñoo dund ay jafe-jafe waxatuma la ak ñoom c'est vrai que nag autorités yi def nañ liggéey bu am solo ci wàllu PUDC mais dafa des aussi lu bare bare bare mm-hmm. donc war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax te ñu gën a xam la réalité du terrain te gis nga FMI tey maa ngi gis tey ci benn quotidien d'information muy wax ni euh, FMI defaat na encore ay prévisions comme d'habitude wax ni ci 2023 bi Sénégal dina egg croissance à deux chiffres mais encore une fois croissance à deux chiffres yooyu noonu ban njeexital la am ci nekkinu sénégalais bi donc bu ñu sëgg ñoom les autorités ci chiffres yooyu nga xamante ne ni à chaque fois FMI da koy génne def ko c'est vrai que c'est des prévisions mais bu ñu ko wax dëgg yàlla di ko glorifier wu nañu xool la réalité du terrain mooy sénégalais yi sonn nañ mooy les sénégalais tey jii nii dañu bëgg bu ñu xiifee lekk dañoo bëgg bu ñu feebaree faju dañu bëgg bu ñu amee seen soxla aussi di ko régler Ndeye Khady te tey gis nañ ni dëkk bi métti na donc encore une fois le président Macky lu mu jàppale askan wi lu mu dimbale askan wi rek doyul. doyul Alaaji. moom baykat wax ci wàllu gerte gi man damay valider li mu wax noonu ma ci ànd ak moom parce que gerte ren non seulement ñàkk na non seulement taxaw gi des na ba nga xam ne baykat bi nekk ci tool bi bu récolté ñi nekk ci clim yi waruñu ko wax ñaata ngay jaay kilo gerte. Mm-hmm. lu néew nii war na egg 400. loolu moom la xel mën a nangu bu fekkee bëgg nañ leen bëgg a bëgg a dooleel sinon bu ñu nanguwul loolu ñoom ñu bay seen gerte ñu téye ko xool lu ñu ko lijjantee def ko def transformation il faut ñu jéem a génn ci ñoom ci euh, stade bi ñu toll fu xalaatee naneen pour mën a génn ci ndóol gi ñu nekk mhm. baykatu ceeb bi nag yàq moom bay gàncax mu yàqu yàgg nay am mhm. mais ci ay jamono dañ daan gis gouvernement bi da ci localité boobu maanaam euh, direction agriculture bi nekk ci département bi. Mhm. da doon dañu doon yàble ay oto ñuy pompe. mais léegi mais léegi xam nañu. Mhm. amatul amatul ay moyens daanaka néew na direction départementale de l' wala de de de la pêche booy dem. Mhm. fekk seen ay jumtukaay équipement yëpp mat dañuy am ay problèmes. yoo xamante moom la ñuy pompe xam nga ni jinax ay jinax yu nekk ci àll. dëkk ci ay pax di lekk ay direction de protection des végétaux mooy DPV. DPV DPV ñu ngi wax am na démb benn élément bu may jàllale. Mhm. ñoom ñuy wax jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkuwanteel. Mhm. surtout ci wàllu saupoudrage bi ñu doon def ci wopp deng ji feeñ fële ca diwaanu Richard Toll. Mhm. xam nga kon saupoudrage pour mën a protéger nit ñi bu fekkee daf ci am ay problème massamaak gox goxaat yi nga xam ni ceeb la ñu bay jinax di ko lekk. Eh, kañ lañ ñooñu di génn ci loolu yaaxat yi mhm. doy na waar jërëjëf Ndeye Dime Ndao jërëjëf Alaaji Mamadou Mansour Diop ci commentaire yi ni ki noonu askan wi toogoon di ñu seetaan boobu ba léegi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar Spirou Ah bah oui, le roi des animaux et maintenant, allez vite, un Red Bull. Red Bull Oui, mais tu seras quand même pas plus rapide que le lion mmh, Je n'ai pas besoin d'être plus rapide que le lion, juste plus rapide que toi. Red Bull donne des ailes. ndax da ngeen namm togg ba saf sap rafet lool si melokaan bu sell